ginnaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di yëgal sàrt yu bees yi nguur gi jël jëmale ko ci génn yi ñu nar a def ginnaaw samedi ñaari fan ci weeru mai li tàmbalee juróom benni waxtu ci fajar jàpp fukki waxtu ci suba wala juróom ñetti waxtu ci ngoon jàpp fukki waxtu ak benn ci guddi mën nañ cee tàggat yaram par kenn wala ñu doxantu ci ànd ci ak nit bu ñu demee ba fukki waxtu jàpp fukki waxtu ak ñaar ci suba wala juróom ñaari waxtu ci ngoon ba juróom-ñetti waxtu ci guddi mag ñi am lu weesu juróom-ñaar fukki at mën nañ cee doxantu ànd ci ak nit xale yi nag ak coppeeku ñëw na ci ndax li tàmbalee fukki waxtu ak ñaar ci suba ba juróom-ñaari waxtu ci ngoon mën nañoo génn ñi nga xamante ni am nañ lu weesuwul fukki at ak ñeent ànd ceeg seeni waajur walla ki ñu leen dénk te mu jaar yoon di leen fàttali nag ni jëfandikoo maska yi ndigal lu lu war la ci ñuy jël warukaay yi mbooloo yi di leen ñaax tamit ngeen di jëfandikoo ay gants ak ay mask saa boo leen ko mënee te it ngeen continuer di sàmm diggante yi ñaari mètre yi ngeen war a am ci seeni diggante wasalaam